dalleen ak jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien Sud Quotidien Le Soleil ñu xëy fekk fa Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes def na ab déclaration bu am solo ci tamxarit gi nga xam ne moom la ñu génn wax na ci ay poñ yu bare bare journal bi di réew mi quotidien nee na fi coronavirus bi toll ci réewum Sénégal ak fi mu toll ci àdduna bi xalif général des Tidianes wax na si nee na askanu Sénégal coronavirus du ab feebar waaye nag mbir la yoo xam ne tooñ munta ñàkk léeg-léeg yàlla sunu borom di leen di teg finna ba tey moom sëriñ bi daan nay wax ne ñàkku na wax na ay njabootam ñu daal di ñàkku ak ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaale ma yéene kaay gi nee na sëriñ bi li mu wax leer na nee na Sénégal yi dem leen ngeen ñàkku ji te nag bàyyi nag vaccin yii nga xamante ni moom ngeen fi nekk leen lu nekk ngeen bëgg ko wax ci ñàkku yi sëriñ bi nee na ngeen dem ñàkku ji moo gën a am solo nag wax ji ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ak enquête ak Les Échos nee na sëriñ Babacar Sy Mansour yàq na musiba ak mbelengaan ñi nga xam ne ñooy député ndax nee na député yi nekk assemblée nationale normal di caaxaan di saagante ak di xeex rek la ñu fa nekkee te nag li nga xam ne moo waroon député yi maanaam kenn ku nekk dem ca gox ba nga xam ne maanaam fa nga dëkk jafe-jafe yi nga xam ne moo fa nekk nga jiim ko indi asambale nationale waaye nag au lieu que député yi def seen liggéey maanaam par parloo la ñuy def am na député yoo xam ne dañuy gis dëgg bëgg koo def fenn am na ñoo xam ne fenn la ñuy gis bëgg koo def dëgg te loole rafetul jaaduwul yéen a kaay gi di enquête nee na Serigne Babacar Sy Mansour wax na ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi ak li nga xam ne nag mooy sàngara si ñuy jaay xale tey tàmbalee ci biir yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Serigne Moustapha Sy daan nay def ab discours moom tim ci li nga xam ne mooy tamxarit gi ñu génn daan nay yàq musiba ak mbelengaana Macky Sall ak Antoine Diome mi nga xam ne moom lañ dénk kaaraangi réew mi ndax sëriñ Moustapha Sy moom nag dafa wax ne dafa am ay service secret yoo xam ne maanaam ñoo koy topp loolee moo tax mu daal di dànkaafu ministre bi ñu dénk kaaraangi réew mi moom Serigne bi daal di nay wax ne Macky Sall ñetteelu mandat la bëgg am waaye nag loolee dinaa ko gàllankoor maa koy jëlal sama bopp samay matukaay dinaa ko ci jëla ba tey ci yéenekaay gi di Fassi moom nag daan nay annoncé li nga xam ne mooy ab coalition boo xam ne moom ak Ousmane Sonko ak waa PDS ak Khalifa Sall yéen kaay gi dalee si ko nee na Serigne Moustapha Sy mbaaru dafa am lu muy waajal ndax dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëgmal daan nay convoqué élément yi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ca Tiwaawoon yéen kaay gi de la sa neen nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi jamono ji mer nañu ba maara déposé ab préavis yéenekaay gi de la Soleil nee na mémorial bu Gorée Almadies liggéey ya danañu ko door décembre 2021 jàpp janvier 2022 yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy na ci njëg yi nga xam ne jamono ji ci marché bi dafa cher ba maara détaillé yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ci waaxi Mauritanie am na lu toll si ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay africain yoo xam ne ñàkk nañu fa seen bakkan ci biir ndox mi am na ay sénégalais yéenekaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk pour la santé nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum wér gi yaram ke wax na ci lu jëm ci wàllum élection locale yi ak ville bu Ndakaaru nee na Abdoulaye Diouf mi ñu dénk wàllum wér yaram ke bu ñu waxante dëgg mooy profil bu baax bi ci ville bu Ndakaaru yéen a kaay gi di direct news nee na bi nga xam ne moo ëmb opposition bi soo muy tuulee ci tas la jëma ndax nag Déthié Fall ma ngi laaj ana yan critère la ñu taxawalee li nga xam ne mooy coalition bi yéen a kaay gi di source na nag mbir am na aéroport Léopold Sédar Senghor journal bi nee na bëri na suuf soo xamante ni daal coow la bëri na fa am na nag lees waxul am na lu lëndëm loola am na lu lëndëm loola ci juróomi hectare yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee na taw yi nga xam ne taw na ko moo tax banlieue bu Ndakaaru jamono ji kenn munta dem kenn munta dikk askan wa dañoo tagga témbe sonn ba maara de taali yéen a kaay gi di réew mi ko di jaay nee na camion malien yi at mu jot danañu am lu toll ci deux cent cinquante trois milliards danañu ko liggéey diggante Mali ak Sénégal diggante ba Bamako ak Dakar yéenekaay gi du L'Observateur xëy wax nag ci Kunkande mi nga xamante ni moo waxoon ne dafay gi géej gi yéenekaay gi nee na dañu ko daal di convoqué waaye dafa ne mes na mentañ yéenekaay gi di sunu làmb xëy ci jaar-jaari Balla Gaye numéro 2 yéenekaay gi nag nee na Balla Gaye ku bëgg li nga xam mooy ba babi foot la waaye nag nee nañu Balla bi mu nekk xale daawul xeex ci mbedd mi surnal bi nee na Balla Gaye 2 la njëkkoon a nekk